Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la salaamaaleykum mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a di topp seen télévision bi di Ahmadou Bamba kenn la TV te ñu ngi fii ci marché Petersen bi fekk fekk suñu mbokki taalibe muy sëñ Moustapha Ndigal Aljana ñuy waaj bisu kennal borom Touba muy màggalu kenn borom tubaa gi ñuy def rond-point Normandie le 6 mars. Euh, sëñ Moustapha ñu bëggoon laa laaj kennal borom Touba buñ ko waxee lan ngay yëg ci sa digganteeg sëriñ bi ci kennal gi ñu ko war a kennal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi ziare mbokki taalibe yëpp di leen bëggee di jiital ci nuyoo bi ak ziare bi ñëpp Cheikh Mouhamadou Al Mountakha xalifatul am li tarixatul muridiya di ñaan saa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér noonu lañ koy ñaanee xalifa Baye Fall yëpp muy sëriñ Cheikh Jëmbu Fall. waaw kennal borom Touba moom daanaka jàpp naa ne comme ni ñu koy faral di waxtaanee chaque jour rek euh, dafa war bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kennal Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillah salaa salaam yaakaari jaam ñi daf laa war li waral mu war la nag mooy Serigne Touba moom euh, dafa teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu ko kenn tegul ci àddina te yonent bi it saa borom da koo teg fu mu tegul kenn ndax yonent bi alayhi salatu wassalam bi alquran ne wa is axasa rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa asadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum boba yéen nga fa woon ñoo nga fa woon waaye yàlla sa borom la sop mune bam ne xalu muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam moo ne balaa ci nonu it cheikh ahmadu bamba xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakari jamni dafa wax ne rama rasulillah min ilahi kawni nii wa abdullah kon yonent bi alayhi salatu wassalam ndem mo sàkku ci yàlla suñu borom Serigne Touba xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakari jamni don ab wa konam kon dañoo jàpp ne kennal Serigne Touba moom xaadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaakaar jàmm yi dafa war ku ne rawatina nag euh, ñun mbokki taalibe yi ñun mbokki murid yi fu ñu mën di nekk rek saa su ne dañoo war di kennal Cheikh Ahmadou Bamba baatu kenn Serigne kenn la nag day loo xam ne koo wax mu fatt ay noppam te dafa nekk jiin ra jiin fa muy jëree jëfe Serigne Touba kon boo nee jëree jëfe Serigne Touba kennal nga Serigne Touba euh, kennal Serigne Touba suñ ko defee lottu nañ ci Serigne ñu mel ne mag ñi fi nekkoon ñi nga xam ne si ne ñoo ñoo ñoo taxawal lislaam ku ci nekk daanaka mën ngaa ne mën naa ne kennal nga sëñ Tuubaa kennal sëñ Tuubaa nag mooy jërëjëfe sëriñ Tuubaa ndax boo déggee ay baytam boo demee ci amettu man yax si mu ni minad dara di nga fa di fa dégg mu naan euh, Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani am naa ngërëmam ngërëmam nag du caagi ne sëñ Tuubaa dafa daf ko liggéeyal ba am ngërëmam déedéet dafa fekk ne sëñ Tuubaa dafa am sas woo xam dañ ko sasoon mbooleem lislaam yi yëpp sëñ Tuubaa ñëw mottali ko Cheikh Abdoul Khadir Jilaani daal koy sant gërëm ko moo tax nga dégg ñu naan raddi anni sibtuhul jilaani alayhi ridwaanu mubini jaali moo tax nga dégg mu naan raddi yaxani sibtuhul xula euh, raddi yaxanil euh, xulafaal arba osturidal muqarrabinal mutbaa kon sëñ Tuubaa moom jëlale na sax di tudd aw tur waaye dane mbooleem xulafaa yëpp sant nañ ma gërëm nañu ma kon ñun lott nañ ci sant Serigne Touba ak gërëm Serigne Touba Xaadimu Rasuul laay euh, loolu nag jàpp naa ne bu fekkee ne waa Kennal TV yi nga xam ne ñoom euh, duñ dox ci lenn lu dul kennal baatub Serigne Touba Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaakaari jàmm ñi jàpp naa ne euh, ñu ngi leen ci félicité di leen encoragé ci loolu di leen wax ne foofu ngeen jàpp foofu rek la ndax Serigne Touba euh, lim ne innasal juuda wal ula wal jalali malikal mulki sal huda wal kamali loolu képp war naa mën a tax ñun ñuy kennal Serigne Touba saa su ne ak fu ñu mën a nekk bu loolu weesoo it ñu ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp waa marché Grand ñu ngi leen ciy woo Euh, yëpp di leen wax ne ñu koy defee ci rond-point di wax ne am nañ ci ndigalal Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Touré nag ku am ndigalal Cheikh Mouhamadou Mountakha na leer ndax Serigne Saliou Touré moo fi nekkal Serigne Touba Khadim Rasoulilahi sallallahu alayhi wasallam yaakaari jàmm ji fii ci Thiès nga xam ne kon du def lenn loo xam ne si ne tënkoowu ci li ne kon lépp lu mu def rek diisoo na ceeg euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu waajal ko di wax ne Euh, incha allahu rabbi mu ngi tombeek le 6 mars kon ñu ngi koy ñu ngi koy yëgal murid yëpp man Moustapha Ndigal Aljana li may nit ñi di laajte nag bari na lool xam naa ne ku ci nekk danaa kii fu mu dëkk ak yu demee noonu waaye képp ku ma bëgg gis rek jox naa leen dig daje incha allahu rabbi le 6 mars ca rond-point Normandie bu Thiès ci kattanu yàlla incha allahu daañu fa daje maa ngi woo murid yëpp di woo murid képp koo xam ne yaa ngi naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Euh, waxala ali allahu akbar ñu ngi lay woo ci bis boobu di la wax noonu li ko tax a jug lenn képp la mooy baatu kennal Cheikh Ahmadou Bamba mooy jërëjëfe Serigne Touba xaadimu rasulillahi salaa salaam yaakaar jàmm ñi euh, kon euh, sëñ sëñ soir aliñ Aliou Soirée jàpp naa ne kennal sëñ Touba moom comme ni ñu koy waxee rek chaque jour rek ñun dañ ko war di dox ndax baat boobu day baat bu rëy kennal Cheikh Ahmadou Bamba loolu loolu ku ku ne li Cheikh Mouhamadou mun Mbacké daa ne murid bu ci nekk daa war a jànge xam ba am ko dikk nag nekk ci téere sëriñ bi boo nekkee ci téere sëriñ bi doo xam kenn ku dul ne sëriñ bi kenn la ndax boo yéree ay téeram di nga fekk mu naan karaamat yi xattu yet yi samay karaama mu ngi ci sama mbindum loxo kon ku yër mbindum sëriñ Tuubaa di fa fekk euh, di nga fekk ne sëriñ Tuubaa moom kenn la war a doon kennuk sëriñ Tuubaa gi ñun duñ ko nattable ndax du yàq dara ci kennuk yàlla gi ndax sëriñ Tuubaa ci boppam minu yaakaar gëm ko muy suñu lépp daf ñoo wax nu ne yéen ñi ma yaakaar ñëpp maa ngi leen di dénk yaa ayyuha sibiyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi istaxilu kon loolu ñu sëñ tubaa denk japp naa ne kon ñun duñu ay jahil ci bir wax joju mu ngi xamal ne yalla ci bopam wa wahidun ma in lahu min wa lam yasal jalla asima sani yalla kenn la te mënta doon ñaar li tax mënta doon ñaar alquran layal nako law fihima alihatun illa allah la fasada kon sëñ tubaa ci bopam xamal nañu ne mom ci jëmi bopam du yalla te du yonente bi waye lako Cheikh musa ko waxo rek do nit te do jinne te do malaaka waye do kainatullahi do musaka wa yakhluqu ma la taxlamuna dal moy Serigne Touba kon ñun ñëpp rek war nañoo saytu baatub Serigne Touba kenn la Ahmadou Bamba kenn la dafay lu rëy moo tax képp kuy dox ci Ahmadou Bamba kenn la euh, xamal yaaraw kudul yow kuy dox ci baatub Ahmadou Bamba kenn la yaaraw kudul yow ndax Serigne kenn la ñii ñii yàlla da leen koo xamal ñii yàlla xamalu leen ko waaye maqaamam maqaamam xam ne Serigne Touba kenn la maqaama gënu koo rëy la Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon rek dafa waxoon wax ju am solo daan ne ba xam-xam daj ne Serigne Touba kenn la kon képp kuy dox ci baatub Serigne Touba kenn la war ngaa xam ne yaa ngi ci yaa ngi ci martaba yooyu kawee ndax euh, maanaam ca wax yu ba wax yu bu mag ba daanaka xam naa ne comme ñun saa su ne suñu waxee yëngal réew mi waaye wax bu mag boo fa demee jërëjëfe Serigne Touba nga fay fekk mooy euh, fatab loxul xarsa boo fa yeggee jërëjëfe Serigne Touba nga fay fekk ak Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la nag day baatu baatu Ahmadou rek ci laay joxelu exemple bu ndaw dama ne Ahmadou képp ku tudd képp koo xam ne yaa ngi julli yaa ngi bind turu Serigne Touba te sañoo ko bañ képp ku julli loolu day day day secret bu sew képp koo xam ne yaa ngi julli yaa ngi bind baatub ahmadu xaw ma xam ko xaw ma xamoo ko ndax ahmadu lan la alif xaadam dell miim dell boo dee julli nooy njëkke da ngay njëkke taxaw daal di rukkoo sigg ci rukkoo daal di dem euh, sujoot taaye sëlmal loolu mooy baatub ahmadu bamba kon Serigne Touba Khadim Rasoul kenn xamul li mu doon foo ko xool ci lu baax fekk ko Serigne Touba daal mooy solution bi lépp moo tax ñu nit euh, liñ naan corona ak yu demee noonu yëpp saa rek sunu solution mooy dox ci nu ñu mën a def rek sunu solution mooy kennal Serigne Touba waaw solution bi mooy solution kennal Serigne Touba ak saa su ne nu ñu ko mën a kennale it fexe ba kennal ko ndax li sëñ bay jaxate waxoon addina day warangeku jamono day warangeku ku toog ci looy warangeku loo bañ ba nit warangeku alxuraan daan ne wa tilkal ayyaamu nulaawiluhaa bayna naasi kon nag bu warangekoo ñun dañuy warangeku ànd ak loolu warangekoo ngir ngir kennal Serigne Touba nag kennal Serigne Touba solution saa su ne fu ñu mën nekk dañuy kennal Ahmadou Mbacké Khadimou Rassoul kon xam Serigne Touba wasalaama xalaa ma ne tamal xaw daa jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kennal Serigne Touba saa su ne ak fu ñu mën a nekk jërëjëf Ahmadou Bamba kenn salaamaaleykum mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a faral di topp seen télévision bi di Ahmadou Bamba Kenn TV tey ñu ngi fii ci marché central fii ñuy wax seen ngir waaj bisu màggalu kenn ak borom Tuubaa bi ñu jàpp le 6 mars. Euh, ñu nekk ci émission boo xam ne nii dañ koy waajalee bis bi muy muy kennal borom Tuubaa fu nu mën a nekk ñu fekk fa mbokki taalibe yoo xam ne nii euh, saa su seen yëngatu ak seen dal fu ñu mën a nekk ci marché bi tamit seen dënn yi ak seen loxo yi koo gis xam ne xasida moo ci nekk ak kennal borom Touba kon ñu jox jëwrin mu mu dimbali mbokki taalibe yi ci wàccaay bi nga xam ne ñu ngi koy wàcc ak kennal borom Touba gi nga xam ne nii mboolem mbokki taalibe yi ku ne yaa ngi koy yëg. aouzu billahi mina shaytaani wa sarrama fi lardi turan wa sama min sahirin wa badin iktadama mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu ku si nekk si turam ak santam te di leen ziar bu baax a baax a baax di am mbégte mu yaatu ci maanaam ci télévision bi ñu dat bi nekk nii muy Amadou Bamba Kenn la TV mu mel ni danoo am bés bu mag bu ñuy waajal muy bésu kennal borom Tuubaa màggal kenn borom Tuubaa gi mu mel ni àddina sépp la waroon ndax kennal borom Tuubaa moom bawut kenn ndax bu demee ba yàlla suñu borom tabaaraka taala di kennal borom Touba ñun mbindeef yi dañoo war di kennal borom Touba ndax kat maanaam li li li li li gën si ñun maanaam li yëpp njëriñ si ñun borom Touba moo ko def si ñun moo ñu tàggale moo ñu moo ñu génne si bu mu jàmm def ñu ñu ay ay gor kon war lu def lu kennal ko maam defuñu li ñu war mbégte mi ni am nag mooy bés bi ni amal mooy 6 mars muy 14e édition di te ren nag ñu ko def màggu kenn borom tubaa ji ñu ngi si woo mbokki taalibe yëpp. di ko si suñu Aliou waxee rek ñu ngi koy ziar bu baax a baax mu mel ni maanam kenn la borom Tuubaa moom fépp la ware ndax damay faral di wax ne borom Tuubaa sax boo boo demee ba ne boo toogee sam néegu ko sa dëgg-dëgg yëg borom Tuubaa des na da war foo mën a toll foo mën a nekk ci àddina loo mën di def moom muy cycle sa biir yam naka borom Tuubaa lu ñuy dund la lu ñuy dund la nekkul ne da da ngay da ngay toog fii da nga war a nekk sa biir yaram koy dund koy dund maam nekkul ne marché bi ni nekk la kër ga fu mu mën nekk ñun luñ ak luñ mën a dox bu ñu gisee ñuy dox man duñ du sik sàkk ku ñu laal suñu biir xol ku ñu ku ñu ku borom Tuubaa nga ciy fekk mbégte min ci am moom moom maam mënuñu mënuñu kaa xiyaas fenn fenn fenn fenn di baax a baax a baax ki nga xamante ne moo doon feggool muy Serigne di jàmbaar lool lool lool nga xamante ne moom nit ku mën a kennal borom Tuubaa la naka ñun danoo danoo danoo tuddee bopp un lu ber borom Tuubaa ñun ci leen ñuy dox ber borom Tuubaa ci leen bëgg dox nakat borom Tuubaa daa beru suñu borom Tuubaa la moo ko ber nee na bu ñu demee maam ba nee na maam fa fa fa maam góor yu baax yi fa ñuy daje nee na bu ñu eggee suñu borom tabaaraka taala bu maam kenn kaddu sañu faaraf te borom Tuubaa ñëwul kon kon ñun ñun ñi nga xamante ne bi ay taalibe lañ ñun ay simple doomu aadama nit ñoo ñoo xaw a ñëwee borom Tuubaa tuuti ba ba tax bu ñu ko tuddee ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi noonu waaye kat bu fekkoon ne maam mel na nin war a mel dëgg-dëgg fu ñu ko tuddee maam sañ ñoo war a benn benn benn benn baat kon ñu ngi leen di woo si bés boobu noonu bésub kenn magu kenn borom Tuubaa ji muy am 6 mars rond-point Normandie Thiès kon ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar ñi nga xamanteni bi ñu ngi ci seetaan télé bi di ñaan rek tabaar suñu borom tabaaraka taala ci barké borom tuba mu defal ñu tawfé ja nga xamanteni bi bis bi ñuy ñuy wacc ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim génn ci alhamdullilahi rabbil alamin te ñaan ki maam lepp lu ci sentu muy mooy fas yéene see borom tuba suñ suñu borom tabaaraka taala maam kattanal ñu egg ba dimbal ñu man amee ko ñun ko bëggé kon ñu ngi ziar bëpp seen naa leen di am lool di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu la Ahmadu Bamba kenn la Ahmadu Bamba kenn la Ahmadu Bamba kenn la